be kaay kaay bàyyi ko mu ñëw bàyyi ko mu ñëw bàyyi ko mu ñëw rek yóbbul ma boo yëmbal caatu yëmbal waaw mais benn la rek ñoo koy ne du ko boo seela yëmbal ki gañ ma ne ko seela yëmbal ki gañ son bi daa mel def ah ñëw na ok bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi seetaan à travers le monde ak foo mën a nekk rek di la ñaanal jàmm ko si yow te naa nag mbuur géej la ñu nekk mbuur nag buñ fi nuyoo buñ fi duggee ki ñuy njëkkal nuyu mooy le roi des arènes double fois bombardier maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziare di la ñaanal jàmm di nuyu sa adversaire franc di ko ziare di ko ñaanal jàmm di nuyu mbëri fi toog yi teew toog yëpp mais nag di di wax Mansour Ba félicitation encore une fois li nga def nii bokk na ci innovation mu ngi lay ñaanal yàlla journée bi nga xam ne moom mooy premier mai 2024 yàlla na réussir à cent pour cent te incha allahu rabbi noonu lay demee ndax combat yi fi toog yëpp wala mbëri fi toog yëpp ay lambu amateur la di nuyu ñi nga xam ne tamit ñu ngi seetaan commandant Thioub Seri Absa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu As ak yéen ñëpp su ma limee naa juum mais di beral nuyoo Papa Sow ah maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax ah. kuma mbuur ndumbe waaw may maa ab sa laa xam maa ngi nuyu ab sa depuis asalem mu mel ni kii nag yaakaar naa Lamine maa ngi lay nuyu yow tamit ñaar ñi taxaw zilo mi nag yaakaar naa ku xam Modou Lo xam ko ca parcelle wala du noonu kii nag boo yëmbal la yëmbal nag dama gis ne fan yi ñu ngi ñëw parce que daa mel ni gis naa ah gis naa xale bi Jóob dem lim def ah gis naa ci bu baax sama doom lay ate kon ma bàyyi la nga nuyoo nuyool ak ñi lay seetaan boo yëmbal waaw ginnaaw baat onze billahi mina seetaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ah. waaw du nuyu yëmbal gi nga xam ne fa laa bàyyeekoo di leen nuyu bu baax di nuyu suma gars yi nga xam ñoom laa ku ci mel ne Soogi Mbay Pël sama rakk Baam Sa du nuyu assistance yi teew yëpp sama mbokk mbëri ah di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp moom it sama suma doom daara waaw du nuyu as ama as Cissé waaw moom ku ñàkk ñaan la quoi. am na solo bi ma yore ba léegi. Mm. maa ngi gis sa bopp. waaw du nuyu tamit waa jàmbaar du nuyu kii bi Mansour. Mansour waaw di ko ñaanal jàmm. Mm. ndax fa dëgg yàlla. en tout cas mbër mu ñu jëflanteel li xam ne jëflanteel na ndax dañuy fay te ñoom seen waxaal du yàgg quoi. du yàgg ñaanal jàmm bu baax a baax a baax. macha allah nuyu suñu waa dëkk. waa Ngeen waa Kër ma Mandiakhas maa leen di nuyu bu baax waa Jëleeru Louga xam nga tudd Louga bi yëpp du nuyu waa Diof yoo fi mu laa Njaajaañ xam nga dëkk yooyu yëpp dama fay dem di bëri ji xam nga rawatina mbuur fi laa yendu sama mm-hmm. maa ngi leen di bëggee di leen siyaar di bëggee waa Samsam Samsam 2 Samsam di nuyu suma course yoro mm-hmm. xam nga di nuyu Farba Thior xam nga di nuyu Dame Contenaire ñoom Baye Tafatine di nuyu waa Igri Jali Birama Thior yëpp di leen bëggee bu baax Jali Birama Thior acca acca salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi toog yëpp di nuyu waa axlu lamb suñu papa yi fi toog suñu grand frère yi di nuyu ñi ma àndal ku si mel ni Magay Cheikh bu Julo soin bu jowaay ak sama mbokk mbër yi ma fekk yëpp ah, di nuyu sunu grand Mansour di ko wax ne yàlla ko yàlla defal jàmm parce que waa parcelle yëpp a ngi koy gërëm te du waa parcelle kese waa axlu làmb yëpp koy gërëm ndax lépp da koy teg ci yoon dëgg yàlla du luñ dëgg moo tax mais ñëpp koy seedal baax di ko ñaanal li nekk ci kanamam mu am ci réussir totale am na solo nuyu sama adversaire yàlla na yàlla nangu ñaam mais si loolu yaakaar naa ne comme ni ma ko waxee léegi rek yëmbal ñu ngi doxal fan yi de am na fa xale bi ñuy wax Diop de bi Diop dem moo bëre ak ki nga xam ne moom mooy Ardo yëkkati ko rek dóor ci suuf kii tamit yaakaar naa ne bu ñëwee le premier est-ce que loolu la lay bëgg a def. waaw moom mii nga jàkkaarloo ndax xam nga ko. non wax bu dee dëgg rek man miinu ma ko de xaw ma ko de wax dëgg xamul. yow mii xamul si jëmm yow ma xam sax ñàkk adversaire moo tax ma jël la mais kii bi ma bi ma koy jël dama koy jël ba pare sax xaw ma ko alxuraan xamoo si loo mii. juróom ah dégg naa ancien mbër la yaa ngi eh, eh, mbër rek yéen. ancien kulaar la man loolu laa yàgg a dégg waa ji moom. Ah. ba ma ko jëlee. ami suñu waa xel bañ gisee. waaw bañ gisee. ma sa ah. sama yaay dama kii moo la doole kii moo la mag kii moo la ko doon loolu la rek loolu. ñoom kii paa ko. man damaa teel bëree père. waaw je ne le 12 décembre 91 dama teel a bëree. 91 teel a am tour parcelle bi may am 15 ma ma ma ma ñëw rek. parcelle am 15 ans seen la parcelle bi may am 15 ans. soo paree ko téye nii. am na ñu fi toog nag mën nañ ma ah. am coow ci làmb. ok nekk xale bu ndaw su ma duggee làmb ay ngal di nit laa fekk nekk ci kili bu ndaw sama tur li ma toog ba nii ma tool maa ngi doog a nekk mbër man bëri ma fa di am coow nekkuma mbër. waaw léegi nga jàkkaarloo kii ma jàkkaarloo kii ñu woo ñu ñu proposé ma kii te xaw ma ko xam am naa droit ne xaw ma la seetaan nag mais am naa droit ma la mbër. waaw loolu lépp bëre a nekk xale maa a bëree nag. fii la buujoo laa wax. bëre déggoo li ma wax boo amul doole dama nga tooñ te kii isaan yi paa la amul doole ñu mën a bëree kii paa la nii kii bu ñu jàppantee mu xam ne lépp dëgg la barki alxuraan maa gën a oo suuf maa la moytuma moytuma song rek nga ne ma song mën ngaa yëngal fii ci làmb ji mais làmb ji man maa yëngal déggoo ma de boo dalee sama kaw ñu naan arrière fële ma de billaahi wallaahi wa taala boo taxawee ma jàpp la duma la daan la man musuma arrièreal góor duma xalaatuma arrièreal góor mënoo ko de mënuma ko da ngay sóor la sóor ji waxoo dëgg la ah billaahi waxoo dëgg si loolu juróom yarul rek yàlla xam ne mbër mënoo si man fukki dërëm ma la jàppee li ngay bañ laa lay def mais lim moo lëpp doole nag si loolu kii moo lëpp doole wala laa lay def muy lan jaay la de billaahi la doole daan la mënoo ko de ma la ma la xam ne doo imbécile baa ngi nii maa la mën maa la li ngay mooy bu arbitre nga def ko nga ñëw jaay ma doole daan ma loolu nga ñëw ñu damay jaay doole samay combat ba mu teg laa la wax amul arbitre sifflé ma taxaw di xaar adversaire wala may arrière di la di la dellu ginnaaw xalaatuma ko arbitre sifflé dalal sama kaw waaw yow lii sama kaw loolu wax la yow fay la fay ma ñu war a jëfandikoo wala arbitre sifflé sama kaw nga rëcc ko yow ah. man kii mun na dina neex de Babacar. ay waaw dañoo bàyyi combat yëpp. Lamine lii dina mais combat bi moo nar a dàq ci combat yi. waaw niru na ko de. daay wallaahi wa taala. ndax si loolu daa war a fépp laajte ñu ne la maa la dàq bëre. bu bëre bi kese bëre bi tegee ko na le man loolu laay bañ a dégg ay Ziro dafa mën bëre. doole bi ngay jaay mënoo ci. Ziro Ziro boo bëggee dama lay may nguur ndomba nga jàpp ba dëgër ñu doo ko bëri. mbaa loolu wóor na ay xanaa xam nga yow nga am ay bëre man damaa liggéey sa bëre man sama bëre gisuma ko. man moo la war a yow sa benn combat laa laa laa laa laa seeraan ci YouTube bi nga naan mën bëre man kon la laay doon di gis sa sa bëre sa benn combat rek laa gis. jëlal lépp jëlal boobu site internet amul. jëlal rek yaa ma dàq bëre yaa ma dàq. waaw yaa ma bàyyi. 2014 moom mooy ci retouram moom retouram bii mu ngi ñëwaat nii. retouram bi du la jaaxal. retouram. waaw. mais retour musul am ci man man damay toog bëree bëree mbëri di la taw ma année balance musuma bëree. ma ma ma toog du ma bëree. année balance mais du retour de. du retour waaw ah, non non. am na solo. combat bi nga seetaan. waaw combat bi nga seetaan moo tax moo yóbbu sa fuuru fara bi. loolu daal man léegi. Zilo Zilo man déggoo li ma la wax man déggoo li ma la wax man barki alxuraan ko ni Babacar ci samay waaw man kenn tëbal ma wala ñu jaar ci yoon bi man damaa jaar sama yoon bi ma war a jaar man ñoo solo a ay yére ngeen sol ay blouson yu rafet muy sappo mais waaw waaw waaw a li ngeen sol daa rafet waaw yaakaar naa ni loolu ci ci la am importance la quoi voilà waa Safco tamit ñu ngi leen di bëgg di leen tamit xam nga mhm. ni ñu jàppale waa jàmbaar di wax waa Safco nañ yeneen a yokk si làmb mais wàññiwul dëgg la di leen ñaanal xam nga sponsor yëpp ñëw waaw waaw na sponsor yëpp ñëw acca wooteel waaw damay woo tamit xam nga dafa gaaw rek damay woo monsieur le maire Bara Gaye dama koy woo bu baax borom yëmbal ñun ay mbëru yëmbal la fi dañuy laaj jàppale ndax yëmbal du man kese nekk am na ay mbëri bëri yoo xam bi la ñuy di ci woo Pape suma xarit xaritu Lamina maa koy woo borom Pape Matar waaw doomu ndey Abdou Aziz Aly yaa ma gën a xam maa ngi koy woo bu baax di woo Modou Gueye di sama xarit bi koy woo bu baax di woo tamit xam nga euh, kii nu mu tëddee sax suñu papa Thierno Diop di woo Omar Omar Yaason ku ne xam ne ko yëmbal maa koy woo di Omar Yaason maa bëgg jëral may bologu bi bëree bëri bëri bëri pour boo yëpp mën a yëpp staff leen bëggee di bëggee waa Dóor Dóoraat waa Mengo waa am na bëggee tamit di woo tamit xam nga Mourou Fall di ko woo baax Xaadim Sila Xaadim Sila Fall aw ma faya maa koy sant bu baax di woo tamit xam nga Euh, Assane Mbaye Assane Mbaye bu Farba tamit maa ngi koy woo di woo mbiir bu naataange di woo waa naataange yëpp waa Farba waa Xandaalu Bégo Jambiréew Jambaar Gëstu Yaakaar ñëpp maa ngi leen di woo di woo waa Samsam Samsam Samsam 3 maa ngi siyaar ñëpp daal di leen bëgg daal jaajëf Assane woote leen si waa parcelle ñu ñëw jàpp ci combat bi mm-hmm. di woo ku ci mel ni Ousmane Sy Ousmane Sy Jesner borom marché HLM di woo jabaram Mayang pour mu ñëw jàpp ci combat bi mhm. di woo tonto Guro moom da ci jàpp boo bële bi ñu mbapat ba léegi da ci jàpp grand Cheikh Jara grand mhm. woo waa États-Unis ku ci mel ne grand Elage borom New York xool leen di woo Ibou Ndour borom New Jersey mhm. day jàpp ci combat yi borom HLM di woo Ibrahima Diop sama grand frère borom France Ibrahima borom France ci jàpp bu baax boo bële mu ngi ci jàpp di ko pour mu gën a taxaw rek di woo sama waa ko ñëpp ñëpp ñëpp ku lim jum sama grand frère ak mafia bi yëpp jaajëf ak waa mbayaar gi gars ñoo jàpp ci combat bu baax a baax a baax jaajëf juróom la nag juróom moo woote waa paasal la ñoo jàpp ci baax a baax dégg nañ la waa di woo yëmbal laa am di woo la tamit xam acca ba premier mai insha allahu rabbi di woo tamit sumu benn papa ñu koy wax papa Amadou maa ngi woo bu baax a baax a baax di la wax ni papa waaw mu ngi nii juróom tudd Souleymane